alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin allahumma axrijnaa min zulumaatil wahmi wa akrimnaa bi nuuril fahmi waftax calaynaa bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqanaa bilxilmi wa saxxil lanaa abwaaba fadlika wansur calaynaa xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jëggal ñaan mu nangul ñu suñuy jaamu ñaan ko mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc ñoo ngi nuyu soppe Al Misbah yépp di leen siyaare bu baax di ñaan borom bi mu def jàmm ci réew mi campagne bi nekk yi nga xam ne moom la àndal yépp yal na ci borom bi def mu sedd guyu ba mu jeex ak jàmm te yokku ñu sutura jamono ju nekk la nit daan ñaan sutura waaye jamono jii da ce rawati ndax daa mel ne doomu aadama naka jekk sutural mbokkum doomu aadamaam yomb ko waaye daa mel ne daa gën a jafeeti ndax bari na liggéey yoo xam ne seytaane moo koy def ba nit day bànneexu ci lum dégg ci moroomam moo xam ay njuumte la moo xam lu mën a doon léeg-léeg waxtaane ko day sedd xolam nett ko day sedd xolom nga xam ne nit ki mën na cee commentaire ba dugg sawara yal nañu ci yàlla musal moo tax xam naa aaya alquran ja waxoon ne alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla isaxtadaytum loolu mat nay bàyyi xel te mooy na la sa bopp doy ndax ki nga xam ne dafa dëng dafa def ay njuumte dafa def ak càggante yow mi nga xam ne da tegu ci njub ndëngteem googu du la wàññi dara yow kon nag jeexal sa waxtu yépp ci eh, eh, ay mbiram daa mel ne càgganteeg doomu aadama la te nag loo ci tàmbali rek nit mën koo àggale léeg-léeg ñun la jamono ji jeex na ba pare la léeg ñu ne la adduna amul solo léeg-léeg nga dégg ñu ne da ngay sëgg ci lettre bu jàmbur te bàyyi lu toll ne wala ne ci livre bu jàmbur te bàyyi say kilo walay ton waaye ànd ak loolu yëpp teewul rek saytaan dañu neexalal lu mel noonu ala kulli xaal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku suturaal mbokkum nitam fii ci àdduna mbokkum jullitam suñ borom sutural la àdduna suturaal la waaye ku xaawi sa mbokkum jullit suturaam ci àdduna sa sutura dana xaaweeku loolu mom amul ma dem te ñëw te léeg-léeg ba ñu waxte ba ñu waxee wax ju mel noonu ca sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ku ne xam na ne sax laalewu ca jegewu ca woon waaye am na ci saxaaba yi ñoo xam ne taxawaay yañ ca taxawoon ba alquran ñëwee di setal yaa Aïcha daf leen jël ne ay delluwaay wane ne eh, lawla istamihtum xultum maa yakunu lana an natakallama bi haada waaw aka neexoon bu ngeen déggee yenn information yi ngeen ni lii duma ci wax lii duma ci wax buñ ko doon def lu baree bari dana tàmbulee réglé wu yàlla ñu borom bi subhanahu wa taala boole jàppale mbokk yi démb maa ngi doon waxtaane muñ nekkoon ci xadis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko ciy jàngale waaye di ci wax ngëneel yi nga xam ne mooy xaar aji muñ ji xadis yi nii ñu tiim di xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax abdullahi ibnu amr ibnu aas radiallahu anhuma moo ko dégge ci moom mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa yarda li cabdihi almumini ida dahaba bi safiyihi min ahli lardi fa sabara waxtasaba wa xaala maa umira bihi bi sawaabin duunal janna waaw borom bi subhaanahu wa taala day fay jaam bi nga xamante ne eh, day bëgg ci moom jaam bi nga xam ne day muñ day muñ muñ ba noppi góorgóorlu ci li ko boroomam subhaanahu wa taala digal moo tax weeru koor sax yonent bi da ko daan tuddee weeru muñ sëxëru saw euh, wala sëxëru sabri yoon maanaam euh, weeru muñ weeru muñ euh, noonu la ko daan tudde beneen xadis boo xam ne abi hurayra moo ko nettali ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xamante ne dafa lekk ba noppi sant boroomam day am wàccuwaayub ki nga xamante ne dafay woor ba noppi muñ muñ muñ xiifaay bi maanaam li mu bëgg wax mooy sant sant kon bu fekkoon moom la ñuy waxtaanee dañuy gis sant foofu dayo bi nga xam ne moom la am ñaari tiyaa baa ngi ni yu rëy waaye nga dégg ci ne muñ kon dafa am solo ba ci weeru koor ñu bëgg wala lu dul weeru koor ñu bëgg nit ki muñ nit ki muñ ci ba mën a jàng alxuraan nit muñ ba mën a joxe alalam nit muñ ba mën a julli nit muñ ba mën a woor nit muñ ba nit muñ ba yooyu yëpp li ci nekk ci tiyaaba dafa rëy yonent bi ne nag ki nga xamante ne dafa lekk ba noppi sant yàlla bi manzilati saaimi assaabiri waaw nee na ab taaimu ashaakiru bi manzilati saaimi assaabiri waaw aji lekk ji nga xam ne dafa sant wàccuwaayub aji koor ji nga xam ne dafa muñ lay ame waaw aji lekk ji nga xam ne dafa lekk ba noppi sant boroomam moo tax am na solo bul ko bul ko sàggane ci yari lislaam yi la bokk boo amee xéewal lekk bu lekk gi neexee na nga sant yàlla ci ngay mën a sax euh, sant ki nga xam ne moo la ko jox su fekkee dañ laa invité ci ngay wax merci waaw ci ngay wax jërëjëf ah añ bi de neex na tubarkalla waaw ci ngay mën a wax soxna si a ah, wax dëgg yàlla de kii moom tubarkalla waaw kay daal di daal di di mën a Euh, nu mu tuddati rafetlu li nga xam ne moom lañ def waaye am na ñoo xam ne waxuma la ak lekk ak leneen waaye jërëjëf ci boppam lañ mënta wax nit maanaam ñoom duñ wax nit mukk merci yàlla nañ ci yàlla musal waaw te cant nag dafa am solo lool waxtaanoon nañ ci yonent bi ne ne ku santul nit doo sant yàlla sant daa bari ay tiyaaba waaye muñit noonu la baree ay tiyaaba di ñaari jikko yoo xam ne dañoo ànd jikko yoo xam ne dañoo ànd xadis bi ci topp nii te abi malik al anhu nettali ko ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax ne at tuxuuru chatrul imaani mel ne day wax ne laab laab ab xaaj la ci ngëm yàlla laab laab baax na lool moo tax bu ne at tuxuuru moo yóbbaale sangu ci ki nga xamante ne daa war a sangu moo xam cangaayul janaaba la wala cangaayul ajjuma la moo baale njàpp moo yóbbaale sollu set moo yóbbaale defar say ko ba mu baax mu ne walhamdulillahi tamlaul misaani nee na sant yàlla alhamdulillah day feesal day feesal balance balance yiw yi da koy diisal gann ëllëg yomal xiyaam dañuy peese jëfi nit ki waaye li nga xam ne mooy cant moom buñ ko tegee ci balance bi balance bi dinaan rëng day fees dell dell dell daaw day fees maa ngi nuyu sëñ Saliou Samb bu baax a baax di ko siyaare léeg-léeg mu waxtaan ci cant lu am solo ak aaya alxuraan yi nga xam ne eh, ni mu koy indee ci biir cant lu yéeme la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yemut ci loolu waaye mu ne wa subhaanallahi walhamdulillahi la aani aw tamla u ma bayna samawati wal ard nee na subhaanallah ak alhamdulillah ñaar yooyu nag dañuy feesal ñoom itam balance yi yëmut ci loolu sax wala mu ne day toll ne daa fees diggante asamaan ak suuf day lu ba mel ne lu fees diggante asamaan ak suuf yonent bi sallallahu alayhi wasalam sallam ci loolu waaye mu ne wasalaatu nuurun julli ak leer lay doon ëllëg yowmal xiyaam ak leer la wasadaxatu burhanun sarax aw lay la ay preuve la ëllëg yowmal xiyaam yoo xamante ne day layal nit ki ngir mu jàll mu ne was sabru biyaa un muñ nag muñ moom itam leer la goo xamante ne day jàppandilal nit ki wal qur'aanu xujjatun al qur'aan aw layla la ñeel la aw alayka waaye ci biir xadis bi li ci ciy dégg mooy jëf yu baax yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci muñ boole ci muñ boole ci muñ mu bokk ci jikko yi mu boole ci sarax mu bokk ci jikko yi mu boole ci jàng alxuraan mu bokk ci julli jikko yi mu bokk ci julli mu boole ci julli mu bokk ci jaamu yàlla yu mag yi waaye naka noonu subhanallah walhamdulillah waaye nee na sarax walla boog muñ muñ euh, solution la waaw muñ solution la fi mu ne loo mënta faj nga muñ ko rek am nga ci solution li fee yaa ngi koy mën a muñ rek buntu dana ubbeeku buntu dana ubbeeku léeg-léeg yàkkamti kay bëgg koo régler tey tey tey mooy indil nit ay jafe-jafe mooy indil ay jafe-jafe waaye boo ko muñee te muñ gi day tegtale léeg-léeg teey am na foo xam ne muñ lam fay tekki mooy teey teey tegtale ne da koy bàyyi noonu waaye da ngay teey da wax dana ñëw nga dégg ko waaye doo tontu ci saasi mbir dana ñëw nga man koo faj waaye doo ko faj ci saasi li feeg yaa ngi muñ doo réccu waaw li feeg yaa ngi muñ Mm, yàlla mën naa def doo bokk ci ñi nga xam ne dañuy réccu waaye boo bokk ci ñi nga xam ne dañuy muñ da ngay bokk ci ñi nga xam ne ay réccukat lañu doon yàlla ci yàlla musal jenn waay joo xam ne dafa bokk ci bani sulaymu addahunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi yadi aw fi yadihi attasbiixu nisfu mi nisful misaani walhamdulillahi yamlauhu wa takbiiru yamlau ma bayna alsamaai wal ardi wa sawmu nisfu sabri wa tuxuuri nisfu limaan wa tuxuuru nisfu limaan waa ji day waññi mel na ci ay loxoom di sàbbaal di sàbbaal boroomam subhaanahu wa taala waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci njàngale ma mu mel ne da koy xamal ne ko sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala day mel ne day feesal ay balance wala da koy xaaj alhamdulillah noonu allahu akbar noonu yooyu sax day feesal diggante asamaan ak suuf koor nag gu ànd ak muñ moom la ca nekk ca tiyaaba kenn xamul num toll moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci beneen xadis boo xam ne Suhaybin radiallahu anhu moo ko wax ne yonent bi nee na ajaban ajaban li amril mumini li amril mumini ab jullit daal ay mbiram moom yéeme na waaw ab jullit yonent yàlla Muhammad nee na ay mbiram yéeme na waaw mbiram mbir mu la inna amrahu kullahu xayr waaw am mbiram lépp aw yiw la mbirum jullit lépp aw yiw la bu ko delloo ci yàlla rek dara dara lu ciy neen du am mu ne walaysa dalika li ahadin illa lil mu'min te loolu kudut ab jullit amoo ko hmm, loolu kudut ab jullit amoo ko yonent bi daal di misaal ne isa asabathu wala in asabathu sarra'u shakara fa kaana xayran lahu moom de bu amee xéewal bu amee ak jàppandal ci mbir sant boroomam mu nekk aw yiw ci moom wa in asabathu darra'u sabara fa kaana xayran la bu amee lu ko dal loo xam ne lu metti la mu muñ mu mujj nekk aw yiw ci moom kon am mbiram daa yéeme ndax am mbiram moom dara génnu ci dara génnu ci aw yiw waaw ab jullit am mbiram li feeg mi ngi delloo lépp ci boromam subxanahu wa taala lépp di nekkaat aw yiw ñeel ko digganteem ak boromam subxanahu wa taala lépp day nekkaat aw yiw bu amee xéewal sant yàlla aw yiw la bu amee mettit muñ ko aw yiw la kon muñu ñu taxoon a jóg waaye gis nga ne xadis boobu daa boolewaat ñaar yi ma wax daa boolewaat ñaar yi ma wax muy muñ kon euh, gis nga mbir mi day toll foofu ba nga xam ne ab jullit moom gannaaw daa gëm ne dundu yowmal xiyaam day lu amaat te mi ngi koy xaar te mi ngi ko xaar loolu da koy yóbbu ci ne du ko génn fenn maanaam du ko du ko génn fenn lu mu def rek bu góorgóorloo am ci yàlla lu def rek bu góorgóorloo am ci yàlla lu metti bu ñëwee mu muñ yàlla ne ko tey ma fay la ba nga xam ne muñ rek a am solo xéewal am mu sant yàlla mu ne ko tey ma fay cant gi ba nga xam ne cant doo nga am solo nga xam ne ab jullit kon amut amut lu war a neel ci moom amut lu war a niil ci moom waxtoom lépp aw yiw la war a doon lépp booy toog wax bismillah mu nekk aw yiw ngay lekk wax bismillah lekk gi nekk jaamu yàlla ci yow ba noppi ngay amaale bànneex nga noppi ne alhamdulillah tiyaaba ja ca nekk kenn xamul num toll nga dara daanu nga ne subhanallah naka noonu nga muñ ko mu nekkaat yiw wu rëy yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min kon ab julit wër te saalit li nga ciy dégge mooy fët-fët goo xam ne mer a ko yóbbeewu nit wala naqar wala am lu ko metti loolu yonent bi xaaru ko ci ab julit ndax bu muñoon yiw la cay am wu gën gën loola xayran la li muy tegtale mooy moo gën fuuf lam ñàkk waaw li nga ñàkk lu metti metti metti boo ko muñee te yàlla tax lam la cay fayee moo ko ëpp li nga am ba bëkki lool boo ci sante yàlla lam la cay dolli moo ëpp li nga am moo ëpp li nga am kon eh, ay mbiram mbir mu yéeme la moo tax mu ne ajaban li amril mumini inna amrahu kullahu xayr wa laysa illa lil mumin beneen xadis bu xaw a nuroo ak moom boo xam ne saad ibn abi waqaas radiallahu anhu moo ko nettali buur yàlla yu mag yooyu àndoon ak ku tedd ki nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne ajibtu min qadaa'illahi azza wa jalla lil mu'mini in asaabahu xayran xamida rabbahu wa shakara wa in asaabathu musibatun xamida rabbahu wa sabara almuminu yujaru fi kulli cheyin xatta luqmata yarfacuha ila fi imraati yonent ci dogalu borom bi subhaanahu yéemu naa ci waaye nag ñeel ki nga xam ne ab jullit la mu ne moom day bu amee aw yiw sant boroomam boo amee musiba muñ ba noppi sant boroomam waaw muñ ba noppi sant boroomam loolu day am nga xam ne lu mettee la dal waaye ku ñëw danaan la muñal ku ñëw danaan la muñal mhm. léeg-léeg nit ñàkk ku ko jege ñu ne ko muñal léeg-léeg nit réer le alal ñu ne ko muñal mu ne ko muñal mu ne ah moom koy alhamdulilah rek waaw ndeysaan xool lu daw yaram loolu lu daw yaram loolu wéttal wi woon ci kër gi yàlla dogal mu faatu borom bee ko def ñu dem robi ko ba ñëw ñëpp jaaxle muurooy kol ne ci yàlla bu ko nit defoon euh, maanaam nit def na lu gën a néew loolu ñu critiqué ko ba mu gàddaay ab dëkk waaye kii moom ku ñëw moom mi ko def la ñuy tudd ba noppi te dañ naan la sant ko dañ naan la sant ko nga sant ko borom bi bëgg ba noppi nga muñ nga muñ moo tax yonent bi ne ab jullit lépp lu mu def rek ñu fay ko ci lépp lu mu def rek ñu fay ko ci kon mooy dundug jullit bi lépp aw yiw la al mu'minu yu jaru fii kulli in waaw lépp lu mu def am ci tiyaaba fi mu ne lépp loo def rek boo ci fasee ak jaamu yàlla te def ko te yàlla tax am ci tiyaaba am ci tiyaaba boo tëddee di nelaw ngir noppalu fas yéene fas na ma yéenee nelaw ngir mën a noppalu ba ne ci forme yeewu ndax ma mën a jaamu yàlla man koo sàbbaal mën a liggéey lu ma dundale sama njaboot nelaw yi doon tiyaaba xoolal loolu nelaw yi doon tiyaaba fas yéene na maa xéewlu ci xéewal yàlla yi xoolal loolu yàlla bég ndax li ko delloo xéewal yi ba suur ngir mën a am kattan goo xam ne danaa mën a jaamu yàlla mën a liggéey lekk gi doon tiyaaba ci yow soxna si ñëw dend ak yow fas na ma yéene bokk ak moom lal bi tëdd ndax li may def doonu jaamu yàlla goo xam ne maa ngi ñaan njaboot gu yokk xeetu yonent bi sosoo ci mu nekk ak jaamu yàlla nga xam ne kon lépp loo def rek am ci tiyaaba lépp loo def rek bu yéene ji doone ak jaamu yàlla borom bi subxanahu wa taala bindal la ci ak pay yonent bi ne ba ci sax ba ci sax tib bi nga xam ne da koy yëkkati leel ko soxnaam waaw leel ko soxnaam bokk ak sa soxna di lekk ba mu yàgg nga tibb ak kuddu sexal ko yonent bi nee na loolu sax da nga ci am tiyaaba lool sax danga nga ciy am tiyaaba dégginu xadis bi nag euh, da nga ciy déggee ne waxut soxna si leel boroom këram ndax loolu daa mel ne yomb na loolu moom yomb na soxna yi soxna su jeng euh, soxna su xaw a jonge tuuti ngeen baal ma mën naa bokk ak borom këram dagg tegal ko waaye borom kër buy dagg di tegal am nag moom moo bëriwut lool moo bëriwut lool boroom kër bu den ak soxnaam waxuma leel de leel moom yë tibb mu nga nga leel ko loolu moom euh, daanaka ñi toll ci kéetu ñoo koy def wala ñi nga xam ne tubarkal la waaye dagg dagg ci ndab li teg ci kanamam dong yombul ñu bari waaw tegal ko rek <laughs> yombul ñu bari waaw soxna si mar rek nga xelal ko ndox jox ko yombut yonent bi nag moo tax mu mu ne bu ko nit ki defee sax yàlla fay ko bu ko nit ki defee yàlla fay ko tibb ab tib bu dee ca ñay lekk loxo ab tib tib nag moom mooy tibb dànk ko sëñ bi ba mel na kuy saraxe boole ci yëpp waaw mu nga ba xulli bëtam nga leel ko ko nee na bu ko defee borom bi subxanahu wa taala bindal la tiyaaba bu dul loolu moo xam ca kuddu ga la wala lu mën a doon waaye ala kulli xaal li yonent bi di jàngale mooy lépp kon tiyaaba la lépp tiyaaba ba tudd lii nga xam ne nit day oyof door koo man nit day oyof door koo man ndax léeg-léeg ñun ñu jàpp ne eh, diine moom ak li tax a am tiyaaba moo yor kurus gi wala mooy tudd yàlla wala mooy di suivre malaaka maanaam nga xam ne yow da ngay mel ne ku bëgg a def formation malaaka ndekete bu la jaamu yàlla taxe jóg lépp lu nite te lislaam jàngale ko bu ko nit ki defee am ci tiyaaba waaw lépp lu nite te lislaam jàngale ko ni mu ko jàngalee bu ko nit ki defee am ci tiyaaba yonent bi jàngal nañu ak nite ba tàyyi jàngal nañu ak ba tàyyi te bëgg na it ñu oyof ba tàyyi bëgg na ñu oyof ba tàyyi waaw léegi nag saytaane mooy laxasu ci sa kii naan la moo mag mu tal yow nekk fi di leelaate nekk fi di leelaate wala mun da nga koy da ngay nekk sax di ko di ko sexal xale yi di la gis waa léegi bu la xale yi gisee ñoom nan nañ la ci roye après buñ la ci royee seen kër neex waaw buñ la ci royee buñ demee ba toll ca buñ ko defee ñoom itam seenu seenum nekkuwaay neex seenum nekkuwaay neex hmm. waaw bu du woon ak sama kilifa yi may déglu dinaa ci mën a wax lu bari ci bunt boobu ndax léeg-léeg bu buñ tibboon sexal la day mel ne biñ la seexal moo dàq le des ci ndab li day mel ne bokkuñu lenn cin lu ko togg ndax ndax ndax nit a mel noonu nit a mel noonu waaw jigéen moom euh, ci ci fànn googu ci wàllu ci wàllu nekkandoo boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ci lu bari jàngale na ci lu bari bis set nit ñi jàngale ko ndax ndax bëgg kër yi kër yi maanaam bañ a doon ay kaso waaw bëgg kër yi bañ a doon ay kaso bu dee kër yi taax yi appartement yi moom dafa xat appartement yi moom dèjà kaso la ndax dafa xat boo ñëwee amul benn espace waaye bu xol yi ubbeekoo te yaatu ñaari way dencante lu foofa gën a xat gën leen a neex ndax day yaatu ci ñoom waaye bu foofa xatee ba noppi nag ay détails di leen bëgg a rey kenn ku nekk di fooñ fooñi da ngay mujj yàkkamti jant bi fenk ba nga xëy boo wàccee itam fu ne nga jaar fa ndax doo sawar a ñëw ci kër gi te loolu yëpp ñàkk am jàmm dong ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana jógee ci jumaa ja sax ci jàkka ja bu ñibbisiwaat këram bu ko manee day indaale sërica diggante bu gàtt boobu dong faaw mu ŋàbbu dara bu ñëwee jox soxna yi bu ñëwee jox soxna yi ba noppi daan kafak moom ñoom li tax ma tudd ko nag moom la ñu yàlla royloo yonent yàlla Muhammad moom la ñu yàlla royloo moo tax niteem gi niteem gi borom bi won ñu ko mu dund ko ci suñ kanam waaw di njëkkanteeg soxnaam maanaam dàqante dàqante waaw di ngegenaayu ci kaw soxnaam saxaaba yi di ko gis saxaaba yi ñëw ci kër gi fekk fekk soxna si toog yonent bi tëdd sóonu ci kaw soxnaam di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom waaye yow nag jàpp nga ne yow moom malaaka nga moo tax moo tax sax léeg-léeg eh, yu baree bari rek yu baree bari rek waaw <laughs> yu baree bari rek mi ngi noonu waaye ala kulli bi alayhi salaatu wasalaam nee na mbirum jullit daal yéem na ma mbirum jullit daal lu yéeme la ndax ab jullit moom lépp lu mu def rek borom bi fay ko ci waaw yujaru fi kulli cheyin allahu akbar yujaru fi kulli cheyin ab jullit lépp lu mu def borom bi subhanahu wa taala fay ko ci xatta luqmata yarfauha illa fiya imraatihi waaw ba ci sax e, dog woo jël e, dugal ko ci sa gimiñu soxna waaw yonent bi nee na ab jullit lépp lu mu def ñu bindal ko ci tiyaaba waaw ba ci sax dog wum jël dugal ko ci gémmiñu soxnaam kon boo ko boo ko xel loon ndox jox ko ñu bindal la ci tiyaaba waaw soxna yi nag moom loolu ci suñu aada ñun seen warteef la ñoom boo ñëwee dañuy dem may la ndox nga naan boo sumee mbubb dañ koy lem waaw dañ koy lem bu dee ñun yar nañ nañ leen yare woon nangam nangam nangam waaye yow itam fi mu ne boo juumoon ba def dara yu jëm ci yooyu te muy loo xamante ne lu seddu xol la da nga ci am kër gu neex ba noppi am ci tiyaaba da nga ci am kër gu neex ba noppi am ci tiyaaba yàlla nañ ko ci am ñun ñëpp waaye li taxoon ma jàng xadis bi du sax loolu te taxaw naa ci lu yàgg waaye mooy muñ muñ gi nekk ci xadis bi yonent bi nee na wa in asaabathu musibatun xamida rabbahu wa sabara waaw xamida rabbahu wa sabara bu fekkente ne lu metti dal na ci kawam mu sant boroomam ba noppi muñ ba noppi muñ kon day dellu ci xadis ba mu waxoon léegi ne inna amrahu kullahu xayr baat boobu ak almuminu jaru fi kulli shay'in ñoo tolloo maana ay mbiram lépp aw yiw la fii mu ne ab jullit moom lépp lum def rek ñu fay ko ci waaw dañ koy fay ci lépp lu mën a doon lépp lu mën a doon li feeg mi ngi koy def te yàlla tax rek ñu ni ko ci fay tiyaaba kon ku dem yowmal xiyaam ñu calcule say tiyaaba bëriwut ba nga perte sàggan nga dëgg ndax koo xamante ni boo tis sooli woon dong ne alhamdulilah ñu bindal la tiyaaba